su ko defee kon ci point boobu dañ ci dellusiwaat rek ci beneen aspect bi mooy xëyu ndaw ñi ndax ndaw ñi réellement am nañ satisfaction ci xëy yi lan la wax ci biir discours bi des jeunes diplômés sans emploi dafa yokk wala dafa wàññiku est-ce que indi nañ ci solution oui ou non loolu dañ koy bàyyi ci appréciation population mais ñun analyse bi ñu ci jàngatee mooy li ñu seetlu xam ko mooy lu ëpp ci ndaw ñi université yu ci ëpp da ngay gis ñoo xam ni dañuy am diplôme mais bu génnee lu ñu am liggéey loolu nekk na phénomène boo xam ni dafay gën a yokk kon puisque dafa gën a kon yaakaar bi nu ci ni ndaw dinañ am liggéey wax dëgg fa yàlla ah, yaakaar boobu boo a xaw dafa mel ni kon loolu aussi beneen raison la bu bokk ci li tax peuple vraiment am benn décision bu mu jël ngir fas yéene car seul le peuple est souverain donc loolu mooy li nga xamante si euh, jàngatal nañ ko ci eh, côté mu jëm ci walu promesse bi nga xamni wéssu won nañu muy li nga xamni ni nañ ko askan bi yaakaaroon ko ci ñoom te bi askan bi dikke ba ci terrain bi dox ay at ay at gis nañ ni promesse boobu ba legi danaka dafa xaw mel lu nax say ndax dañ ne woon dund gi dañ ko wàññi bon ko wañi di bu gat danaka dafa multiplier wu yenn yi dem na ba ñett yoon yenn yi dem multiplier bo ñaar yoon boo nattee 2011 ak legi yenn yi presque dem nañ ba 4 fois ci cheray loolu aussi vraiment métti na ci askan bi te nekk loo xamante ni si askan bi séntu ko woon ci gouvernement bi nga xam ne jox nañ leen réew mi tey te doon yaakaar ci ñoom ay solution yu ñuy apporter pour ko dund askan bi mën a ñëw kon loolu mooy li ñu passé promesse ba naax na saay wala boog su naaxu saay lu bëri ci li ñu doon ci promesse bi population bi amu ci satisfaction ñu ñëw nag ci actuellement lan la ñuy dund ci loolu mooy ana lan lañuy ñuy dund un Sénégal difficile un Sénégal bu nga xam ni waxoon nañ ci biir promesse waxoon nañ ci wàllu sécurité Sénégal la boo xam ni nit ki pour mu nekk ci këram sax yar jur wala yar loo ay mala jafeeti na ci moom parce que insécurité bi dafa émerger kon émergence bi ñuy wax aussi il faut que ñu xam ni dafa amaat yeneen yu émerger insécurité dafa émerger Sénégal dafa daan am sécurité de garantir une sérénité garantir sécurité à sérénité car quand la sécurité est garantie la personne va être dans une situation sereine kon su que ni situation sécurité sénégalaise n'est nekk na ah, garantie que la sérénité des foyers devient discutable et dans ce cas dañ le remettre en question kon sénégalais yi nekkatuñu en sécurité à 100 agression bi bari na te ba tax léegi amaguñ ci solution deuxièmement ñemeetoo ya yan net ci mala yi sa biir kër ndax tu risques d'être agressé ou ci tu risques d'être volé et même encore pire même d'être na ma yàlla jigéen ci kàddu gi sax ba ngay jële ci ñàkk sa bakkan wala nga jële ci ay gaañu gaañu kon sécurité Sénégal des na ci askan bi foofa aussi da nekk na benn mbir moo xam ni lu ñu war a jàngataat la lu ñu war a xoolaat la ngir dolli sécurité askan bi rawatina ci gox goxaat yi te élection yi ñu génn ku ne xam na ni ci gox goxaat yi la doon xew jur gi sàmm gi sonn nañu baykat yi ñépp ku ci nekk si ñoom sonn nañu soxla nañu ndimbal rawatina sécurité ñi nga xam ne ñoo yor ay jur soxla nañu ko ko sécuriser seen seen seen seen seen seen seen vraiment seeni mala parce que loolu la ñu am mooy seen liggéey te ci la ñuy ci turlu ci la ñuy teral di ci dundal seen i njaboot kon loolu aussi su fekkee ni dañ ko hypothéquer ban euh, espoir moo fa des daanaka dootul bëri nga jóge si loolu ñu dem nag ci cadre diplômé diplômé yi soo ko waxee dafay xaw a toucher un peu les entreprises ñu gis ni ci Sénégal li ëpp li ñuy jàng danga ko jàng ba pare boo génnee doo ko kon loolu aussi beneen désespoir la donc ci kaw loolu il fallait que ñu xool par rapport ak formation yi ñu xool yan implantation yan entreprise ñoo implanté wu ñu xool entreprise yi implanté wu yan liggéey lañuy soxla ñu fexe orienté euh, euh, formation étudiants yi ci loolu wala ñu fa orienté formation donc les les les les les les personnes qui sont dans le secteur professionnel ci loolu su ko defee suñu génnee lañ mën a am euh, insertion loolu nag ñàkk gi mu ñàkk am aussi bokk na ci lenn li nga xam ni tax na askan bi lu bëri ci seen yaakaar daal di tasaaroo donc suñu duggee ci li nga xam ni nag mooy moom lañ toll muy li ñuy dund. dangay xool nappkat yi demal nga laaj ci nappkat yu bari luñ daan am pratiquement ci géej gi buñ demee ba ñëw daan daanaka amatuñ ko boo xoolee ñenn ñi jël yoonu euh, donc géej gi di tukki extérieur boo ci xoolee ñenn ñu ci bari du ci ñàkk ñoo nga xam ne ay nappkat lañu woon parce que activité bi dafa ralentir nga dem ci cadre vraiment euh, euh, li nga xam ne moo di mbay mi gën gis na

population bi constaté nañ ko seen bopp seetlu nañ ko seen bopp ba tax jël benn sanction bi jëmale ko ci yenn maire pour terminer puisque li weesu ca nañu diggee woon lu ci bëri gisuñu ko instant bi li ñu dund métti na te amaguñ ci réponse amaguñ ci satisfaction peut-être ça serait la raison pour laquelle ñu ne kon puisque loolu am na ñii ku leen tegaat suñu kanam suñu yaakaar day continuer di tas raison pour laquelle ci yenn gox goxaat yi mën naa am bokk na ci li tax

Parce que connaît les votants, les, les, les, les, personnes qui ont voté pour les locales, ce sont ces mêmes personnes qui vont voter pour les législatives. Donc le régime actuel, nous l'avons fait. Moi, je suis en peut-être c'est une ou bien c'est un avertissement. Donc nous savons que le peuple avertir que dans beaucoup de localités, le peuple a une satisfaction. Ce qu'on a fait, Wale fou gouvernement bi, moun yon laksayou, takou, tem mou fachepo, tem mou repondou preekupasyon popilasyon bi. Tisen diakare, tisen dis, atisen metri. Loukou moun, desijyon bi, popilasyon bi djen, moun djen desen bop sen responsabilite, moun nan apete wate disiz la defi. te comme le régime actuel dina la frustration sentir frustration population bi gën a sentir aussi engagement population bi nga Il ne léegi dañoo yeewu jëlal seen bopp seen responsabilité et sans oublier aussi que ni y a l'influence de la sous-région sous-région bi aussi la xew a yàlla ma xew ci suñu mais nit ñi les réseaux sociaux l'internet le monde est devenu un village planétaire où tout tourne autour d'un seul bloc tout est devant l'écran devant l'écran on apprend tout raison pour laquelle impact bi mën a xew ci yeneen réew yi mën na am mu éveiller population yi ba tax population yi jëlaat seeni responsabilité xam ni képp kuñ fi teg soo deful li ñu la fi tegee ñoom ñooy jëlaat seen responsabilité jëlee la fi ci jàmm te coow du am Sénégal nag ci culture boobu lañ leen xam mooy le vote mooy les urnes amul xeex amul xulu amul lenn loo xamante ni si day jëm ci ay coup d'état Sénégal loolu du seen culture mais nag peuple bi yeewu nañu jël seen i responsabilité nous savons ni nous le peuple a le pouvoir et que pour nous jox suñu pouvoir te peut-être le peuple va se lever pour démonter cette personne et montrer monter une autre personne pour que les espoirs et les espérances puissent être réalisés loolu nous mooy jàngat bi pour que dans l'avenir nous que le peuple bi peuple bi mais aussi jël nañ seen responsabilité L'engagement populaire le nombre de votants nous, ak intéressé wu la ci léegi si vote amul woon bu njëkk loolu moo tax aussi ñu bëgg a terminer ci point boobu di wax ni dinañ leen jox dig daje ci yeneen i eh, pour gën a mën a waxtaan ci tolluwaayu réew mi te xam ni aussi métti gi réew mi métti tolluwaay bi nit ñi toll ci souffrance ak ci cherté surtout dund gi métti gi mën na nekk moo tax wala mu bokk ci li tax dans beaucoup de euh, de de de de de ñu battre. maire yi nga xam ne ñoo fa nekkoon nekk ay responsable du régime actuel kon loolu lañ amoon ci point yu ñu doon analyser di ko partager ak yéen di xaar aussi seeni commentaire ci biir euh, euh, YouTube bi de xool aussi ces réaction pour que nous mën a compléter te ñun ñëpp ku ne mottali sa morom di leen jégalu aussi ci lépp loo xam imperfection ou bien manquement ou bien les loo xam peut-être mën na frustré ñenn ci suñuy internautes c'est pas notre notre souhait mais nous ngi leen di remercier aussi ci cette fidélité de ngeen jëf ci cette émission WhatsApp ànd nous seen télé Teuf Connection Yeah.